ah. waaye Boubacar Camara lu muy wax waa Grand Yoff. Boubacar Camara. Macky Sall jatam ba jàpp na ko. ma nga ca buntu pale ba xam ndax ndax dugg na war a waaye en tout cas daal dugg na ci pale bi génn bu génnee nag ñu xool lan lay ca amaas ngoy xaar ci buntu pale ba ñu dem xooli Boubacar Camara bu génnee lu muy def ñu xaar ko xool Boubacar Camara bu génnee ci pale bi bu génnee nan lay def ak nan lay génne moom Boubacar kamara ci pale bi lay génnee ñu xool nu muy génne <laughs> jërëjëf Macky jërëjëf <laughs> merci Macky jërëjëf merci merci Marème maa ngi dem merci jërëjëf <laughs> ok ok non xam nga affaire yi ñooy tàng rek donc boo nekkee ci opposition non non Macky doo nit waaye man su ma génne la wax suñu waa koñ si xam nga heure bi tamit duñu ah, bàyyi ba timis ma sama génn ah Macky duma bàyyi ba timis ma sama génn. non génnoon rek génnoon benn problème yow xasul gars yi ñëw nañ gis nañ la koy garaawul gën journaliste yëpp dàq naa leen wax maa policier yi ñu dàq journaliste génnoon rek <laughs> c'est man lu neex suñu waa koñ moo ma jaaxal non génnal génnal génnal tamit ah, gën a garaaw génnal ma xool ndax benn journaliste nekku fi Macky am ku taxaw fii de mu génnal garaawul génnal waay ah. tam li du dara gënul salaamaaleykum woote yàlla day moo gën bu man day ku mu ne woon lii tey dina am amal ah, duma ko gëm Boubacar waaw Camara ah man day Camara yi la jëri Camara Camara lay def ci buntu pale bi eh, dama doon dem fee fan fii fee fan la dama ñëw dem côté da kii. Euh, euh, Babacar Faye ay gendarme fa nekk. waaw waaw waaw dama xam euh, kii secrétaire bu Macky bi. secrétaire Macky man. secrétaire Macky bi. waaw sama mbindaan wujj yaayam la. waaw secrétaire Macky bi sama mbindaan wujj yaayam la loolu mooy waxi lan. waaw mbindaan bi dafa xëy liggéey su tey. buuba buuba da ngay doomi Grand Yoff am fa taxawaay bu am solo ubbi fa pàcc bu beer. peq bu am doole boo xamante ni moom CCC jëngu ñoo xamante ni nii dañoo am détermination booba waaw at na di dox at na di dox at na dox ba ma siir ci buntu pale bii nga génne yow fii nga génne yow te bu baax bi nga génne booba dañ laa woom déet xam nga kii nu mu tudd maram man <laughs> douanier laa woon Marème bi ma nekkee douane dafa am ay euh, douane yu ma jàppoon ay kii tissu. tissu douane waaw kay te yooyu dañu ko doon seet gis ñu ko. ma gis euh, waa Séddale Sénégal sol ko ma ko doon laaj euh, ban douanier comme ko nekkatuma fa sax ban douanier moo waroon indi. Boubacar ba nga jógee douane yàgg na yow ba nga jógee douane yaa ngi fàttali sukk PCA sukk sim nga nekkoon nekk nga fa ay diir diir yow mbiri douane xamatoo ci dara dara ndax jóge nga fa bu yàgg buba. non du ma ah, <laughs> ah, xaaral ma rek buba actuellement. Macky Sall actuellement dafa dafa ubbi gouvernement bu bees buuba ngay doomi Grand Yoff danaa bëgg nag fu ñu toll ndee ma naar naar yaa ngi ma bëgg a xam buuba da nga dugg wala duggoo oui ou non. non dafa am benn dentiste bu nekk fii. dentiste yi lan yow da nga commencé faj bañ. ci pale bi nii boo génnee nii dama xam ne ma génne porte bi. après waa ji tëj buntu bi parce que serrure bi moo seere woon man xaaral ma tëb miir dugg bu tëbee na kër pa nekk kër Macky laa dugg ah yow da nga tëb miir fekk na yaa ngi bëgg waa kër Macky après Macky ne ma exactement dama dama la soxla sax ah da la soxla waaw waaw dañu waxtaan nii rek mais waxuñu ci affaire dugg ak génn dara hmm. waaw mais yow euh, euh, euh, yow gouvernement bu Macky Sall bu bees bii est-ce que mën nañoo jàpp ni Boubacar Camara day dugg non fii laa génne waaw xam naa ne fii nga génne ki yow man xam naa ne fii nga génne bi ba xam da ngay dugg laa wax da ngay dugg bokk ci gouvernement bi hmm. non dugg naa ba pare ba génn nii mais mais mais mais bi ma fi duggee xam nga moom bi ma nekkee douane dama ameloon benn encore benn caution boo xam ne euh, gaa yi fay ñoon tax douanière ci euh, banderole yi nga xam ne moom moo waa APR joxe woon léegi moom laa doon toppaat pour sama thèse bi war a def ci affaire taxe et douane et paiement de reliquat bàyyi nga yi nga xam ne waa service Sénégal waaw après fa laa jaarale woon si kooka lan fa fa man fii laa génne fii laa génne tamit boo may wax fii nga génne tamit man daf may jaaxal fii nga génne di yow fii nga génne di waaw fii nga génne te Boubacar dafa am wax joo xamante ni wax dëgg yàlla damay bañ mu topp mu way wu topp topp Grand Yoff waaw te am da parole nga am da parole nga wax ko wax ko benn yoon rek oh. waxal benn yoon am da parole nga bi ñuy dégg ci yow tukulóor ari racine euh, euh, euh, jëngul wax wax ji Boubacar da ngaa dugg wala duggoo non man njëkkee wu ko fi sax xoolal ñëpp xam nañ doo ko fi mujjee xam naa ni njëkkee ko fi. man njëkkee wu ma njëkkee woo lan. non man njëkkee wu ma ko fi laa man njëkkee wu ma fi loolu njëkkee njëkkee wu ma fi jékki dugg. Ah, yow njëkkee wu fi jékki-jékki dugg. waaw njëkkee wu ko. ah da nga ñu dugg. waaw waaw waaw waaw man daal xaw ma lan la man daal fi ma lañ ma yëkkati sama kaw lal rek nu ma ni ma buutu mbaay rek <laughs> ma sànni sànni ma. Boubacar Boubacar. ak li ngeen la gisee Macky Sall du nit Macky Sall du nit pour man ay gént la ba tey waaw man lan laa suñu waa koñ waa Arafat. man de waxuma li ngay wax Arafat li ngay wax Garaño. lan lay wax waa Garaño waaye wax dëgg yàlla tamit di gént ñu lay juuta mbaay. sànni woon la fenn. waaw fii xanaa ka la ka la juuta mbaay di xanaa. walaay walaay walaay walaay walaay. Garaño dañ la jëlee. walaay di la juuta mbaay di la juuta mbaay di la juuta mbaay ne la fa yal banding walaay soxna Mariama noonu la demee nii billaay la ah? dama tëdd nelaw rek jékki ñoom buutu mbaay buutu mbaay ne ma mbay mbay ca pale ba ma ma jàkkaarloo mag yi ko lu xew mu ne ma kaay ñëwal ñëw nga yow laa doon xaar kon daal mën na noo jàpp ne Babacar dugg nga man daal gént ma fi dugal xaw ma lu ma fii génn nag gént daal moom dugal fii daal kii am na gàllaaj nga ni léegi ku ma waxoon ne naa bàyyi Sonko coalition boobu ñëw fii mais Babacar est-ce que nekkul yow yaa bëgg a dem déedéet ci ay nelaw ay nelaw ay nelaw nelaw nelaw de mën naa dal ku nelaw jékki-jékki mu mel ne dañ maa takkal ma cravate solal ma pa takkal sama montre ibbi sama oto ma dugg ci ne capax dugg lépp ci gi lépp nag ba wax ak moom ba d'accord dugg kon dugg nga mujj naa dugg ah man ki dama xul la ki wax koñ ba laa réew mi mujj naa dugg ah déedéet Boubacar mujj naa dugg de Boubacar Boubacar dugg nga dugg nga dugg nga ca pale bi yeneen tur du man rek gént gii man de gént la ma dikkee ñeneen ñi xam nu dikkee waaye man gént la ma dikkee ba mu dugg yow daal lan laal juta mbaay juta mbaay ba sax juta mbaay buuta mbaay buuta mbaay foo fanaani na ma bayi pale yàlla la yàlla baax ah, ah, te du man rek de man xam naa bul takkal keneen ña ma romb ci salle d'attente bi di bu ñu leen waxee ah nga ni lan ña ma romb salle d'attente ñu toog di xaar yee ñooñu bu la fa géntu dugaloon bu ñu génnee duñu am lay man la laay wax waa grand yow kan neel dugg nga rek gis naa ci ponkal boo xam ne noir fumé la sol nga ni ma naan ko sawaay du diw mu ne ma noo dugal rek dafa wal waye ma nga ca saltatam ta gis naa ci koo xam ne su ma la waxoon turam da nga su billa bul yokkañ bul wax kenn saar la sant nga ni mooy yow man de gént ma fi dugal waaye ñoom seen xelu bopp leen indi man gént ma dugal fii ah, yow yow yow yow nay xamee ba xam ñoom seen xel yow ndem yow gént la fi indi <laughs> yow nay xamee ba xam ñoom seen xel damaa génn ngeen gis la ñu toog kenn ki na ma saar kenn ki na ma gay. gay sa saar. waaw waaw. nga fa. waaye léegi man Boubacar.